ngeen baalal ma ah, <laughs> suma suma network bi network bi baaxut network bi baaxut because GSM yi ñooy yooyu sàcc rek sàcc rek waaye lu ma bëgg a wax si case bi mooy case bi maa ngi see def man suma own side of investigations yaa ngi understand um, démba si uh, uh, xaw ma ban démba la also Fatoumata Rahman kooka fa naa démba la def naa vidéo um, mu ngi doon def live I think am um, woon nañ ma évident boobu noonu mu ne ñooñu yóbbu nañ leen mile two mu ne ñooñu yóbbu lañ leen mile two te démba nekkul ne démba lañ leen yóbbu mile two imaginal tey la ñooñu dem mile two tey lañ dem jëf jooj bi def everything yóbbu kooku boy bi mile two janxa bi right now mu ngi kaanifin because janxa bi dafa am doom bu ndaw bu moo nampal kaanifin si police bi ñoom ñaar yëpp la ñu waroon a yóbbu Mile 2 boobu jànq bi mu ngi si kaanifin si police bi maaju si boppam tey la dem Mile 2 naka la Fatou Rahman kooku xamee ne booy bi mu ngi Mile 2 depuis démb la wax ne ñooñu ñu ngi Mile 2 lii dafa am lum rax lu bari gis ngeen di ka bi billahi di ka nekku fi ak ma ma bala maa jeexal boobu ma wax si keesi Aïssa Faty bi nga xam ne génne woon nañ caaji si Banjul ñu ñëw ekkatiwaat kees bi kaanifin te di same gaay ku def jooj bi imaginal ñu ne tey code bi bu ñu fa nekkee kooku dafa def jooj bi fat fat rek ne dafaa dem dëcc within ten minutes am na ñu fa ñëw ñu gis ne mu ngi handul beneen case léegi police yi case boobu ay euh, kooku moo amee di seen case yi ay sa faati bi yàlla nelawut de yàlla nelawut ba pare dat faat siise gis ngeen Watson Gambia lu tax ñu génnee ñu génnee vidéo bi bu ñu ko dugalee audio boobu noonu yaayam bi ñu record bu yaayam doon wax ak faram bi fooma faram bi oo oh, whatever boyfriend am bu mu nekkaloon man duma hex jigen te duma nangou ken ko hex jigen way nañ len waxante diga naka la bi amé vidéo bi te ken salut koko su fekke moko post te boy bi maaju si bopam musu tam mitantee gaaw la len nekk di len expliquer ni billahi wallahi talaay vidéo bu gaw la ko def suma network bi baaxul boy bu nekkone ak jangha bi faat siise bu elik vidéo am génna barke karim setan na video video Fatou Fatou Cissé boobu bu am génn ay ati ati at si gannaaw boobu ful taati neen ak yarami neen billaahi wallahi tallaahi won nañ ma ko live ma koo gis mu simeeku moom muy vidéo boppam moom Fatou Cissé gis naa ko xeexuma ko wallahi xeexuma ko waaye su ñoo def nañ leen def si justice man ma mujjee laaj ki ma fi ma doon su ma investigation bu ma doon def investigation dama mujjee laajte ma ne leen jànxa bi faat Cissé mi lan la am kuy liggéey si government bi ñu expliqué ma waaw diw moo mbokki jabaram yi ñoo nekk force cousins ak yaayi faat siise nii ak nii at nii ma ne leen wallaa looloo tax ngeen jàpp ay nit defu leen justice si ñoom ñu leen ngeen def seen jooj ngeen dogal ñu yóbbu leen mile two ñu ne ñu ngee def noonu lañu ñoo defee code bi noonu mile moom booy bi mu nga mile two ñu waxaat ma yeneen tur non man suñ force la di bi ñu waxaat ma yeneen tour yoo xam ne ñu ne involve nañ in it bokk nañ si because boy bi daf doon support si Ceesay di wax ne waaw force la bi loxo mu ngi si dugg na fii loolu moo tax ñu def yeneen def si according to allegedly accuse nañ leen of all this. Fatou Rahman kooka naka la xamee ne démba ñii dem nañ mile two te ñii demuñ mile two démba tey lañ def jooj bi ñu yóbbu boy bi mile two dëgg nekkul si dëkk bii de barke alquranul karim te kenn ñeme ñu ta wax ku wax ñu jàppala ana human right. where is human right bala ngeen di wax di wax ne waaw suma favorite waaw be be strong be ni hamlen, hamlen xam leen affaire bi naka la fa demee bari nañ ay nafexa bari nañ ay nafexa si media bi bari nañ ay nafexa but wallahi xalaat leen seen first day yi baameel yàlla nelawut gumaantuwut marut nelaw te du musa nelaw xale bu góor bi xale bu ndaw la ngeen def loo xam ne xam ngeen yéen booy bi xamante wut ak booy bi suñ xamantee musu ñoo gisante Boy bele bu dof lo sénégalais bele bu dof lo be dugg fi du demati because mu affaire bi yep mom la mom lañ wara tiyé mu ngey wax yaay jangha bi lu len audio bi bu baax Watson gambier hypocrite yuñ doon dañ ko pose après génne ko because xam nañ is contradicté dañu contradict yaay bi ak boy friend bi len ne because ñaan ñi social media dañ dé am information before ñuy def any jooj imaginal Fatou Rahman Kouka bu di jut boobu am nañu am screenshot of it am na ñu am record of it am ñu am whatever of it mu ne démba ne ñoo ñoo ngi mile two te ñooñu tey lañ def jooj bi ñu dem mile two naka la ko xamee wallahi xalaat xalaat leen seen force de yi baamel yéen ñii di dogal yéen ñii amee doole jaay ne yéen am doole kun fa yakun moo leen ëppa doole alxaq moo leen ëppa doole da turut dina mu sa feeñ bu dul àdduna rek di àllaaxira te léegi yàlla xaaratul beñ dee si àdduna bi la koo defee booy bi mu ne deful te ñoom ñu ne suñ benn evidence of ne booy bi ak janxa bi ñoo ko siyaa ñaar ñu jàppa noonu amuñ benn evidence waaye because janxa bi am na ay mbokka yu nekk si ñu am doole because booy bi janxa bi kii def defa génn amna ay mbokk ñu am doole waw ñu am doole mom doole way yalla ji tay nelawut man dëgg rek lay demal barke alquranul karim dëgg rek son Gambia ya, lu ñu delete video bi way fekk nit record nañ ko ba pare ben si yalla amone dem ñom buñ ko delete way fekk nit screen record nañ ko ba pare pose ko len yobu code yóbbu son Gambia ñoko pose because sen logo bi sa mu fa sen everything mu fa yobu len ko len bëgg yobu code yobu len ko code ku ko mun ta post son Gambia ñoo ko post lañ ko jëlee kon ko dëgg amut si ko dëkk bi ku am xaalis rek mooy am dëgg ak ku am doole ak ku bopp ku papaam wala mbokkaam wala mbokkaam nekk si sécurité bi wala nekk si nguur gi wallahi yéen a ngee seetaan Gambia yéen a ngee seetaan because ñooñu ñu ngi amoon ay agiw léegi moo tax ñu ne ñoom la ñoo ko def seetaan leen bu baax ngeen bàyyi seen xel yéen miy wax ne suma favorite waa bii strong waa bii nii bàyyi leen seen óorut leen na ñoo ñoo ko génnee because boy bi musu tam mitante dat maaju musu tam mitante former boyfriend bi xamante nañ nag social media lañ xamante waaye musu ñoo mitante te boy bi si boppam sénégalais bi mun ngi koo wax ne mu ngi wax ne musut ko koo sen ba pare mu ngi wax ne moo ko puus naka la loolu mun a nekkee te soo bàyyee xel affaire bi dañ ko screen screen record dañ ko déggal dañ ko record si beneen téléphone si téléphone yi boy bi kan moo ko def te musu ñoo mitante te yow nga ne musuloo ko koo sen te yoon musu leen a gisante. ren baalal ma network bi la. man gis naa vidéo Fatou Cissé boo xam ne barke alquranul karim bu booy bi di dinañ mun a wax ne far bi Sénégal dinañ mun a wax ne yëgut ko man moom nu ma ko seetaanee man su ma diggantee yàlla man gëm naa ne kii yëgut ko bi ko kooku di vidéo gëm naa ne kooku lu bon la def yëgut ko waaye boo xam ne dafa neex Fatou Cissé si boppam mu vidéo weenam yi vidéo kanamam bi vidéo bajoom bi vidéo muuteem bi yëpp la vidéo yëpp la according to nu suma investigation tamit bobu tamit daf ko selon faram mais bobu kees bobu sa jógoon na ñu ne mu jinal ko moto affaire bi ñu bàyyi ko noonu mu seeda nañ leen waxale jigéen yi dégg ngeen bu ko jël ko xamne tek ko si prison bi is totally unjust that is not human right man ba xamul human right lan moy seen njëriñ ci bi di human right lan moy seen njëriñ man day dina wax nik activiste la man dinaa wax lu leen nekk ngeen def man dinaa wax because su ma liggéey la man xaw ma ana activiste Gambia bi ak féministe Gambian si xale bu jigéen bi ngeen jël ko yóbbu ko ah, Kanifing moom tam dafa war na dem maali tuuri waaye dañ xam ne lu ñoo def du yoon ñu yóbbu ko Kanifing mu mun a téye doomam bi di ko nampal foofu si police bi ndax loolu lu raay te amu leen evidence su ñoom it's bailable it's bailable these people will not run is bailable ngeen def seen code ba mu jeex sénégalais bi def waxu leen ko ñun xam ñun ñëpp xam nañ sénégalais naka la mu nee duul sénégalais yu bari duul kase mooy seen santa mooy seen ñaari liñ tur mbokk lañ nag waaye xam nañ leen bu baax a baax mu naan waaw su ñëwee waaw dina leen mun a defee dina mun a wax because maaju moo ko def naka la ko maaju defee te musu leen di gisante man duma ko gom de musu leen di gisante te police amuñ benn evidence against maaju boobu noonu ñu jël xale bu góor bi yóbbu ko pour lan boy boy bi soo honest ba nga xam ne bu mu gisee post bi from Watson Gambia dafa dem reporti boppam si police bi loolu waroon na leen a won ne xale bi góor bi nii nekkul koo xam ne ah, dafa féeg voilà wala dafa kalaw kalaw yooyu noonu nonsense yooyu noonu la. waaye jël ngeen téléphone bi ba pare mu jox leen password am bi intoon lu mun a xew xam leen ne police la maa leen ko wax Gambia lu mun a xew police la because lii is totally unjust this is not human right police am nañ doole boo xam ne lu leen neex la ñoo def waaye baax na. keesi Aysa bi ma ngan ji xam ko waat nañ ko caaji suñ wàccee woon Banjul ekatiwaat nañ ko Kanifing because am nañ ku leen faa taxawal comme ku def jooj bi fat-fat ne dafa am dëj waaye billah yal na la yàlla may dëj yal na la yàlla may dëj yow mi ñaan ne da nga am dëj nga jooj ko fat-fat ñu yóbbu xale bu góor bi mile two within ten minutes nga ñëwaat atten beneen koot yal na la yàlla may dëj